Hmm? moo tax ñi naan dem soraanoo di battre dañoo juum battre mooy jaxase carte kupp mooy nga jël ci ab sëq waa roof ko ci suuf fay fay bi ci kaw sëq bi nga jël ci suuf la jëm la ci des lañuy commencé fay léegi nag yaa ngi fay sa billet safara acca waaw ñu naan joobo joobo jubba nga naan nii rek jóobu jubboo Assane jóob nga naan nii rek bii doyagul de ñu nit di la joxe li am asafala Moustapha Mbaye di la di la di la di jënd moom it ay biyam Zeyna bu jënd yi biyam ngeen ñibbi si na ñee leen toj ngeen fa waaye ñoo ko bokk waaye waaye sëñ Assane Assane toj nga foofu soraanoo démb yaag sa xarit boobu Moustapha ak sa so yal na ngeen yàlla na ngeen gudd fan kii muusi ba la leen ñaanal fu ngeen guddee fan di gën a bon rek xanaa ngeen gudd fan boog ndax ngeen tuub ci diggante bi bari na ku bëgg a def asan ci gàmmu baa ci conférence baa ci daara ti mënuloo ko te yor nga ko parce que yàlla la ko tere soxlawu na leera ah? yow borom alal bi maa la ko wax looloy dëgg jéem nga ba tay mais ko mébét nga ba tàyyi naa def lii mënoo koo def parce que yàlla soxlawu ko kulu mimma razaqnaakum xalaalan tayiba yàlla nee na yéen samay jaam yi leen di dikkal seel leen la ca lew te sell def leen ni ngeen def jën ku jënd jën noo koy waas xotti ko génne salte ya loolu la wax ci alal lekk leen xalaalan tayiba waas leen ko butti ko